sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey inna allazina baayahu rasula bi xidmatin qad baayahu aljalila inna allazina baayahu rasula bi xidmatin billahi min alshaytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim rabbi inni auzu bika min hamazati shayatin wa auzu bika rabbi an yahdurun wala hawla wala quwwata illa billahi alaliyu alazim ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp mbokki lislaam ji yëpp di ñaan suñu borom subhaanahu tabaraka wa mu defal ñu suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmande yàlla ak ak njéggalam mu mel ni rek dañuy dellu si sunu mission wala sunu jotaayal yóbbalum ndaw muy jotaayu xam-xam waaye di jotaayu fàttalikonte ñu nekkoon nag doon jàngale téere bii ñuy wax zaadu xall mi muy téere bu am solo téere bu bari njariñ téere boo xamante nii kat làmboo na xam-xam bu baree bari mu mel ni sunu bàyyee xel suñu jotaay bii weesu ñu ngi doon jàngale ci ki nga xamante nii daf lay dénk ngay sàkku leneen lu bokkut ak xam-xam na nga xam ne kookee di la diggal nga bañ a sàkku xam-xam kat mu ngi lay digal nga topp bidaa na nga xam ne kat jëf du mukk lu xam daf koo jiitu waaye jëf joo xam ne ni xam jiituwu ko kat fa muy mujjee mooy jëf yi day sànku day yàqu kon tey nag ñi ngi tàmbalee suñu bind ci fal xelmu moo tax mu ne fal xel mun daal xam-xam wal xamalu ak jëf jawharaari ñaari wurus lañu yajulu baani danañu bijje mooy danañu xëcc li xayriya daare ni ñeel yiwu ñaari kër ya mooy àdduna ak alaaxira kon sëriñ bi nee na na xam ne xam-xam ak jëfe xam-xam na nga xam ne ñoom ñaar ay wurus lañu mooy nga xam xam-xam bu baax ba pare jëfe ko loolu dafay mel ni ay wurus yu gànjar waaye nag yemul ci loolu waaye mooy njariñ ji nga xam te nii moo lay amal njariñ ci àdduna amal la fa njariñ ci àllaaxira moo tax mu ne yàjj lu baani xam-xam ak jëfe xam-xam dafay xëcc nit ki jëme ko ci mu am njariñal àdduna ak njariñal àllaaxira kon loolu nag li koy man a maye mooy na nga am xam-xam bu wér bu baax te jëfe ko jëfe gu wér kon xam-xam ak jëfe ñoom ñaar mënuñoo ñàkk bañ a ànd moo tax mu ne wa asraful aslayni gën jaa tedd ci ñaari cosaan yi ilmun mooy xam-xam xuddima goog jiitaleef na ko kama ata ni mu ko dikkee bii ca moom hadisun hadis ba xadd sama goog yëkkatiku ne mu ne nag da xam ne cosaanu la gën a tedd ci mooy xam-xam ak jëf ban moo ci gën a tedd kon na nga jiital xam kon xam-xam moo gën a tedd ni nga xamee noonu la ko xadis ba muy xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andee nga xam ne dafa njëkk a jiital xam-xam ne xam-xam kat moo gën a tedd kon na nga xam ne booy tànn ci ñoom ñaar xam-xam ak jëf na nga xam ne xam-xam moo gën a tedd waaye nag na xam ne xam-xam li muy tedd tedd li muy tedd tedd ak li muy baax baax ak li muy gën a tedd yépp na nga xam ne balaa njariñ jaa feeñ faw jëf day ñëw kon xam-xam ak jëfe mënu ñoo tàqali ko mi ngi mel ni tey nga am ak garab saxal ko garab ga nga saxal ba mu màgg mooy xam-xam ndax xam-xam mooy fondement te fondement bu amul rek la ngay teg ci kaw du baax kon nag garab bu amee ba pare lay tax garab ga am njariñ mooy day am ay xob am ay meññeet su ko defee garab gi day njariñ kon xam-xam ak jëf noonee la mel ndax na ko xadis ba indee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi na ko ci ab xadis mas naa toog am ko ko laaj daal di ne ko ayu ahmalin daal di koy laaj ne ko jën jëf mooy jëf ji gën mu ne ko alxilm mooy xam-xam mu laajaat ko ko mu wax ko xam-xam mu laajaat ko ko mu wax ko xam-xam ba muy ñetti yoon mu ne ko waaw ndax dama lay laaj jëf ji ci jëf yi nga may wax xam-xam xam-xam xam-xam yonent bi sallallahu daal di koy wax daal ne ko ndax sunu borom dina nangu genn jëf yoo xam ni ànd xam loolu mooy lu am solo kon jëf balaa muy am daraja dëgg-dëgg ñu koy nangu mooy dafay laltaayu xam-xam xam bu dikkee nag jëf doo la ñëwee kon loolu mooy li ëpp solo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne alxilmu imaamul xamali wal xamalu taabiuhu xam-xam mooy jiitu ak jëf waaye nag xam-xam ñëwee ba pare nag jëf daal di topp moo tax mu ne is ngir kullu xaamilin bépp aji jëfe bila ilmin ci lu dul xam-xam ci lu dul xam yura gopp def na ko gis fa sax yu yuhu jëfam ya mislu habayin ko ak pënd nushira goog wisaareef na ko mu ne gépp jëf goo xam te nii danañ ko jëf te ànd ak xam nga xam ne jëf la jëfu jëfu jëfu gumba la rek mi ngi mel ni ku gumba di jëf nga xam ne li muy jëf mën naa am du ca xam dara neen na nga xam ne jëf googee bu àndut ak xam-xam mi ngi mel ni pënd bu wesaaroo kon ay jëfam day mel ni pënd rek bu wesaaroo du am njariñ mu ne wa man xawaa ku làq xel man xam-xam walay sa yaxmalu te jëfewu ko bii ca moom xam-xam ba fa innahu na ko moom mee kat ximaarun kem ab mbaam yaxmilu goog na yenu mu ne nag waaye nag képp koo xam ne dangaa làq xam-xam dangaa am xam-xam waaye ba nga amee xam-xam nag jëfewoo ko kon lam la waxoon ca tam ca tàmbali maam ma ngay ñëwaat xam-xam buñ jëfewu moo tax mu ne la kon képp ku am xam-xam te jëfewoo ko kat nee na yow moom sam misaal yaa ngi mel ni am mbaam moo xam te ne dangaa yenu ay téere mbaam mu yenu ay téere loolu kooku moom amul amul njëriñ mujj sax sonal ñu ne noonu la mel kon xam-xam ak jëf ñoom ñaar faw ñooy ànd xam-xam bu dikkee jëf topp ca xam-xam doo la feeñ njariñam doo la mën a feeñ kon xam-xam ak jëfe xam-xam moo tax moo xam ne tàmbali maa ma ne fal xelm wala xamal ma jëw xalaat xam-xam ak jëfee xam-xam ay wurus lañu xam nag loolu na ko bàyyi xel ni nga xamee ne noonu la yàlla waxee woon ci alquran ci suratul jumaa masalul lazina xummilu tawreet summa lam yaxmiluha kamasalil ximeer yaxmilu asfara nga xam ne yàlla dafa misaal yahud yahud yi bi ñu wàccee ci ñoom tawreet nga xam ne jàng nañ ko waaye jëfewuñ ko kon nag seen lool loolee ñu def mooy jàng rawee te jëfewuñ ko mi ngi mel ni ay mbaam la ñuy nuróol mbaam yoo xam te nii dañoo janu ay téere nga xam ne amul leen njariñ loolu misaal la boo xam ne suñu borom subhaanahu tabaaraka wa taala moo ko wax ci alquran ci yahuud yi ci niñ defoon tawreet kon loolu moom la sëriñ bi indiwaat ci xam-xam bu pare te jëfe woo xam-xam mu ngi mel ni mbaam mu safi téere kon loolu lu jara bàyyi xel la kon liy jariñu dëgg daal mooy am xam-xam bu baax bu wér bu rafet jëfe ko jëf ju wér yu rafet boobaa njariñ ñi da daal di fees dell daal di leer nañ kon alxilm wal xamal kon ñi ngi wàcce suñu kàddu ci fii ñu yem ba beneen jamono insha allah ñu ñëw yeggale suñuy kàddu kon ñi ngi ñaan suñu boobu may ñu dégg ak topp suñu borom dolli ñoo dimbali dolli ñoo suturaal may ñu gudd fan ak wér may ñu xewal yu bari te barkeel te suturaal ñu tey ak ëllëg may ñu wërsëgu yaatu te barkeel kon ñu ngi sant bokk jullit yi nga xam te ni ñooy faral di teew jotaayu yóbbulum ndaw mi yëpp bokki taalibe yëpp ñu ngi leen sant leen gërëm waaye ñu ngi leen di ñaanal ñaan goo xam te ni am na ak tàmbali waaye amul ak yam yàlla nañ suñu borom doolee dimbali ñu ngi sant waa bitim réew it ñi nga xam te ni jamono ju nekk ñu ngi ñuy teewlu te te di ñu soññ bu baax ñu ngi rafetlu seen seen teewaay seen jotaay yooyu yëpp ak seen teewlu yu am solo yooyu di leen ñaanal jàmm di wax ne comme niñ ko baaxoo waxee rek képp koo xam te nii e, dégg nga suñu kàddu da nga xam ne waxukaay bi ñuy jàllale suñu kàddu mooy Mouride TV di loo xam te nii kat. xam-xam rek ko ñor yaatal xam-xam yaatal lu baax rek moo ko kon ñëpp dem abana ji mënoo topp jotaay bu baax kon yàlla nañ suñu boom defal digg ak topp in uridu ila al islaaha ma stataxtu ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa sëriñ bi dana sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey liggéey